nga ni ñun dañ koy toroxal say nit ku ne di yor laminam bu ñaaw di wax waaye jàmbaar la nag elle est toujours debout ñun jigéen pour daal leen ñuy du yomb de <laughs> mais tey li soxna si wax mën nañ leen ko defal moratoire pourquoi ñu war pourquoi ñu war ko pourquoi ñu médiatiser wane ne presse bi di xoxotal façon xoxotal boobu bu lan la pour man xoxotal la c'est la grande question da ngay noppi wala nga fay mais am na redevance yoo xam ne eh, euh, yéen yéen a koy war a am presse baa ngi koy am ci ART yéen fan ngeen nekk ARTP la xaw ma fi ngeen nekk loolu benn waaye laa dégg moo ko wax nee na loolu bu ñu leen ko joxoon rek yéen soxlawu sax aide aide eh, aide état bi ngeen di wax xam nga yow yaay aide à la presse bi ñu doon am ba tey d'accord nañ man presse bi ma nekk man dama leen a amel maa moom sama presse parce que maa ngi ci maa ngi am benn maa ngi koy kii léegi tey man am naa lu ma leen war a fay te ñoom dañ may jox aide à l'état tey bu nekkee un million lañ may jox par weer nañuy jël cinq cent mille bi di ko di ko di ko ci dagg sama liggéey dina continuer aide à l'état biñ may jox bu dee di million nañuy jël cinq millions yi wala six ya sax di ma ko dagg mais pourquoi ñu bëgg ko popul def populisme bi yëkkati xoxotal tiital fii li ko bay mun a wax fii ay tàppe newuñu fi de ay ragal ñu fi de d'accord fii ay jigéen yu jàmbaaree fi nekk mm-hmm. ay góor yu jàmbaaree fi nekk mm-hmm. koo yàlla ya koo yaakaar yàlla la yaakaar mais yéen lii dañ ko war a rus ngeen ñëw ci mu réew bu dee cent nit au chômage ñoo fi nekk ñi ngi ci deux cent au chômage su nekkee trois cent ñi ngi ci quatre cent direction yi nee nañ dañuy dàq ña nga xam ne ñoo fa nekkoon parce que nday Sow moo leen fa tegoon pour man boo yoree réew bul xool ne nday Sow moo fi tegoon ñii ci société bi wala presse bi daawul bind lu baax pour man yow bokkal uuf ñëpp yaa njabootee ñëpp. tey yow boo tëjee presse bi yëpp ba say presse boobu nga indi ñu lay wax di la defal sa say mbaaxi maam say mbaaxi maam mais ala day day soof sax soxna si wax na ko léegi presse bi Pape Alé Niang chaque jour dana def ay bêtises am heure bu ñu ko jàppee moo tooñ pourtant presse bi ñëpp dañ doon jóg de solidarité lu leen tey ñu def ko ci bii kon ñooñu ñoo ànd ñoo faroon ak ñoom la ma wax laay waxaat ba presse amee njëkk la journalisme yàqu. Sira waxé ñu défal leen ko une facilitation ba nga xamantene dinañ ko mëna a fay te kenn diko ko euh, bu bu li des li des ci waxtu yu bareetul té il faut ñu parce dugg ñu dugg carrément ci bu ñu indilee une imposition mhm. am nga droit nga attaquer ko ñom wala nga yóbbu ko ci justice mais la grande question mooy lu tax mën na nek mën na nekk de façon moratoire par G dañoo bëgg ngeen noppi mais pourtant loolu amul problème hein, c'est ça se fait société pétrole bi dañ leen a indi 17 milliards xaw ma 12 milliards xaw ma 15 milliards. Mm-hmm. société pétrole pétrole bi. mais ñoom dañoo dañoo dem plainte gars dañoo dem plainte waa waa waa kii kii bi. Euh, euh, oh, waaye ñu gis ni ki euh, kii di nekkoon soxna si njiiti réew mi Mariam fay sàll mm-hmm. yaayam Oumou jàlloo dañ ko woo fële ca ca ca ca police ba mu daal di war a dem wuy ji Euh, ànd ak doomam aadama sa Faye mi nga xam ne moom tamit fàttaleku ne yàggul dara woowoon nañ ko ba defoon ko garde à mu mujjee fay ñu daal di koy libéré bi pa ay yaayu soxna si njiitum réew mi fi nekkoon la moom la ñu woo mu war a dem waaye mook aadama ñoo war a dem wuy ji ci mbirum suuf la ba tey terre foncier est-ce que du euh, suite wu problème mu aadama mooy continuer noonu. Ah, en tout cas bi pa mook yaay ji ñoo war a dem li mu mm, war a dox. mu jàll euh, voilà on va attendre xam euh, le dossier dans le fond. Mm-hmm. mais li ci nekk rek mooy dafa c'est que on est sénégalais yëpp ñun ñëpp dañoo war a tënku ci yoon d'accord. Euh, mais li ñu doon wax rek euh, teggin maanaam maye na lu bari. Sénégal tu peux des choses. Mm-hmm. yoo xamante ni tey euh, mën nga ko régler ci wàllum yoon ak yeneen yu nu mel te du am am toole bi mm-hmm. lan lañ ci jublu ba publier. ba dossier bi public. Mm-hmm. voilà lan lañ ci jublu ba dossier bi public. lan lañ ci li nekk ci suuf lan la ñu namm. jàpp naa ne du ay teggin bu ma sukkandikoo ci yenn kàddu yi nga xamante ni ñoom ci seen protocole. gars yi nekk nee nekkatul Cap Manuel waaye teeru baay soogi la euh, comme ñu ngi doon wax yaay jàpp naa ne sa maam bu nekkoon ci problème yu ni mel mhm. euh, bi mën nañ ko régler xëy na te du te du te du yegg mhm. surtout bu laalee euh, fi mu laalee ndax fi mu laalee donc moo tax xëy na mu public ñu fësal ko ndax problème mu coowal suuf ak yeneen yu mel sénégalais lambda bi mu ngi koy am chaque jour di dem ci wàllum yoonal mais lii li tax ñu fësal ko man mooy mooy mooy sama question Euh, te mënoon nañ ko régler sincèrement sans que. mais est Sénégal yëpp ñoo yem parce que bu fekkee ne kilifa tey génn na ne moom dossier bi classé woon nañ ko ça veut dire dañ ko régle kon bu dee dëgg la régler nañ ko te kenn yëgul lan moo tax bii ñu fësal ko. ba def photo bi ci ci dëgg bi. Euh, waaw moom yow tamit foofu rek ndax waxtu wi li ci des bareetul euh, mu jàllo di yaayu soxna njiitum réew mi fi nekkoon moom lañ convoqué fële ca gendarmerie mu war a ànd ak doomam Adama Faye dem wuy ji. citoyen sénégalaise. Mhm. xam nga boo bëggee toroxal ku ko yàlla toroxalut da ngay sonn yow yàlla dalaa toroxal ba pare yow nga ne da toroxal ku yàlla toroxalut xanaa xamul yàlla dina la jox nguur yoo xam ne daf laa toroxal boo tax mu jox la ko <laughs> ku weddi ku weddi laaj firaaw na <laughs> ku laaj weddi laaj firaaw na yàlla lay jox nguur yoo xam ne da lay toroxal parce que man au fond de xam naa ne ñii amul lu ñu liggéey lu war a tax ñu mérito nguur gi fen ba jàll rek lii rek a leen jox nguur ak ndimbalu Macky Sall loolu de lañ wax. non non léegi nag fa laay ñëw xaaral non non du ma fa du ma fa débat lu sori mais dama ko bëggoon na wax non xaaral xaaral xaaral non kii comprendre non fii de man yow boo tuddul woon sax boo tuddul woon non boo tuddul woon loolu man dama koy wax fii dama naan pour man defe naa bu makki Sall dugaloon loxoom jël teg leen fi lii ñu def nii duñ ko def. jël yaay première dame indi ko waaye première dame moom titre baa ngi fi ba tey pour Marème Faye Sall rek titre moom mu ngi fi ba tey pour Macky Sall l'ancien président de la République titre titre titre titre euh, titre euh, xaw ma titre bi mi ngi fi ba tey bun dafa am lu ma liir ci Africa Jeune Afrique ma ne bi ma ko liiree ma ne leen bu nekkee cette histoire là cette histoire là est avérée fii ak 12 ans la la ñuy xam dëgg bi wala 20 ans nit ñi ñooy laam-laamee rek ba pare euh, Camara man ñii seen victoire bi duma ko xajamal nag mais ben, ne sama xol dafa jeex sénégalais ñoo voté pour ñoom 54 virgule et quelques pour cent te loolu c'est pas tout le Sénégal l'opposition à 47 pour cent kon dañuy sant yàlla te on est 18 millions de sénégalais boo génnee 18 millions de sénégalais ak seen pourtant pourcentage nga xam ne kenn voté wu leen mais ñi ànd na ñoom ils ont voulu Dieu les a donné man problème bi ma am mooy nan la joomaay def ba nekk candidat man loolu sama problème nekk prison mën a nekk candidat mën a euh, waat sur l'honneur mën a signé te def naa xam nañ la fa jot a xew ba remi ménage am ba ñu tuxal ñu bëri bëri jàpp ci ay nit. xëy na loolu. non non loxo Macky ji neewu ci xam nga xam nga bun man du ma. c'est une question que je pose. Hein. man sama vis sama gis-gis. man je man je respecte. bu man je respecte yow ni nga gisee. mais man sama analise laa wax de waxuma faral makki wala ma faral Ousmane Sonko wala loolu bu nekkee man Macky mi ma jot a gis nii ci kanam nii ma gis ko nii man góob ma mu bis dil ak Ousmane Sonko ndax Ousmane Sonko maanuwul amul bàmmeelu biir amul man may ma ma ma ñëw rek s'il amul amul bàmmeelu biir du ku ñuy jëflanteel mm. parce que gis nañ ñi bi muy jël réew mi li mu doon wax lépp bu dee ay sosit daan na ko wax am na ñu ko gëm Je bi je peux pas être le président de la république moi je peux pas être Ousmane Sonko on a tellement de coins à se rencontrer taxaw ci corniche di waxtaan quoi soxna corniche vous ko complot ci borom télé bi ñëw ba ci fay di taxaw quand même ku du am wax pour man lañ gis Macky ak Ousmane Sonko ñu taxaw ak Ousmane Yara mais Ousmane Yara il a le droit de venir faire euh, nan lañ koy waxee sax euh, médiation c'est pas parce que c'est un étranger que warta mën indi non fii lañ ko fekk mais problème am je suis étrangère à ici ma ñëw jéem a arrangé la mu Sonko wala la mu xam nga ñun lu ñu war a rusa wax ni ma Macky ak Amadou Ba am nañ problème ñun dañ koo war a jomma wax xam lu tax ñun dañ koo war a jomma wax makki Sall dans plusieurs personnes dafa te seppi ñoo ñu jël Amadou Ba il était le plus méritant c'est pour ça ñu jël ko sampul APR bokk ci bi ñuy samp APR Macky Sall seppi ñi mu àndal ñëpp ne ko yow laa jël kon bu ñu bëggee leen wax ne am na lu xew seen biir seen diggante kon la la la Amadou Ba def rëy na kon et je suis pas a pas de problème bés bu may gëm ne problème am na dama koy dégg ci Amadou Ba mu wax ma ko wala ma dégg ko ci Macky Sall mais ñun Sénégal ma ne la problème bu rëyee Amadou Ba Macky Sall moom problème bu rëyee nga fa déggoo ma ne la Macky Sall aussi bokk na ci ñu concours yi à la participation de Diomaye à ces mais c'est sur l'amnistie Macky non non non Macky amnistie bi fii lañ ko fekk fii lañ koy bàyyi amnistie bi ñoom neexu leen may ma si voté amnistie may ma yéen waaw dañuy waxtaan c'est ça waaw dañuy waxtaan amnistie ils avaient quatre jours pour faire le mou pour annuler cela mhm. xam nga damay dégg waa Pastef yow li nga mhm. war a wax xam nga mooy la mhm. Macky Sall def na amnistie bi mais waa Pastef yi ne ñoom ànduñu ci bokkuñu ci pourtant loi yu bëri dañ ko doon voté biir assemblée nationale daf leen doon jaral gendarmerie dugg biir ci biir waaye jour boobu ñoom ñëpp dañoo ñu ne déet bi passé ils avaient 4 jours pour pour def recours xaw recours la ñu xaw recours c'est ça. Euh, am na recours am na beneen bu ñuy wax aussi ils avaient 4 jours pour faire ça lu tax defuñu ko te nee nañ bëgguñu woon amnistie bi lu tax defuñu côté te bëgguñu woon amnistie bi ils avaient 4 jours mais dama ne la amnistie bi choix la te man am na loo xam ne du ma ko wax ci plateau mais bu micro yi fay dinaa la wax lan moo indi loolu. man je préfère ñu amnistie ñii que ñu génnee prison di nekk ay ay di nekk ay ay ay ay président di di di euh, euh, prison di dem palais directement encore une fois wax bu dofee wax bu do fa ko mom pour ñu génn prison directement dem palais l'état c'est do ay fo qui te dit que l'état n'a pas fait un sondage est-ce qui te dit que l'état de xoolu ne ñi bu ñu jëlé réew mi génnee prison wala ñu nekk biir prison mën nañoo jëlé réew mi ci nangam ci ay pourcentage est-ce que du génne len mo gën est-ce que est-ce que y a tellement de est-ce que Yo yangi ngi imaginer Diomaye ñu dem élection. c'est le politique. non ah, mais l'État ne réfléchit pas comme ça. c'est le politique non c'est l'État qui réfléchit comme ça. c'est l'État qui réfléchit comme ça am fu mu mais bu nekkee man am na lu tuuti lu gis waxuma la lu xam ci Macky dem na xawma ci mom la mais lima ma gis ci kanamu Macky góoma mu nek nit ki wara négocier ak Ousmane Sonko. ah mais c'est avéré nak soxna si. c'est mais il preuve. mais c'est preuve. fait c'est grave en fait une preuve. mais c'est avéré avéré une preuve. yan preuve mais mais. camarade s'il te plaît moi des preuves. donne-moi l'urgence de l'amnésie. est-ce qu'il y avait urgence. Tu penses qu'il n'y avait pas urgence Il y avait urgence sur quoi 80 personnes sont mortes. Des gens ont été. Non, mais laisse-moi terminer quand même. des gens... l'amnésie non, je viens sur cette volonté-là. -hmm. Amnésie, Macky Sall, je ne Parce que prétexte, il y a dialogue 2 jours, 5 jours, je ne sais pas. Il y a des députés qui ont voté l'affaire. Donc, je peux dire, fait, qui fait que ne Macky Sall amnistie. alors mais ce sont les faits. non non ce sont les faits. dialogue national Macky Sall. ku loi. il 12 euh, assemblée. Mhm. Macky euh, député majorité bi ko voté Macky mhm. donc nous ça prouve à suffisance. que ne Macky Sall concourir concourir ci en fait euh, concours euh, beaucoup na wa pat wa ci li tax légui li ma lay laaj léegi maa ngi ñëw mhm. bokk na ci li tax lolu am mhm. légui nak euh, ñi nga xamanteni ño ci bok ñep les faits ñi nga xamanteni ño bokone dans la grande coalition Benno bok Yaakaar bëri na ci ay kangam yo xam c'est des voix autorisées nak mhm. ak lo leen xeeb-xeeb ay voix autorisées lañ bir Benno bok Yaakaar ñun ñu gis nañ leen ñu tok ci ay plateau télé wax ay comportement yo xamanteni insolite ci ci fayu élection ci jouru élection ci ayel yeneen ak yeneen ñeneen génn dem plus loin avec des aveux. kan comme kan. comme Abdoulaye Seydou Sow. Abdoulaye Seydou Sow lu mu Seydou Moustapha kan Abdoulaye Seydou Sow. waaw. il est d'accord accord Abdoulaye Seydou Sow pour mhm. résumer genn na tok ci plateau. Mhm. wax ne mom en tant que mandataire am dañ ko ko dindil yow en tant que politique tu peux penser dindil il n'est plus bah, à l'approche des élections il y a des mandataires des des des des trucs de de euh, représentants de bureau etc. cest et mandataire départemental mandataire communal ou centre. ah mais loolu wax d'accord qui est l'autorité après qui est l'autorité politique je suis d'accord. qui est l'autorité politique. li nga wax d'accord naan dama la dama la mais Sira. nga ne Diomaye bu en prison pour du gagner Non, je n'ai non j'ai pas encore dit ça. je peux répondre sur ça je vous pose la question à vous deux. le fait que je si c'est possible ce serait possible. je le dis ce serait possible mais le fait que le fait que la candidature de Diomaye puisse passer me pose problème. pour te dire que ça ne me pose pas problème Non, le pose problème Macky Sall ba koy question. le chef de l'État. moi mais le chef de l'État et alors ça c'est dangereux non non non non non ah, ça c'est très dangereux ça veut dire que Macky ne maîtrisait rien dans ce pays ça c'est très dangereux. C'est dire que Macky n'a jamais maîtrisé quelque chose dans ce pays. Dans un État, c'est très dangereux. Encore une fois, la justice est à part, l'État est à part. Il faut qu'on fasse faire, euh, savoir, ça faire la part des choses. on parle de l'État et on parle de... C'est la justice qui a choisi. Man, conseil constitutionnel, là, là, nan la candidat. Comment il a pu être candidat en étant en prison mais tay Macky Sall bi ma bëggee ñu renvoyer élection bi justice bi wonna non parce que si tu dis que sous les yeux de Macky Sall. Ah, mais Macky Sall day ñëw. l'homme le plus informé de la République il faut qu'on soit tu as dit le mot l'homme le plus informé de la République xamna limu def ak limu ko défé Il y a des raisons d'État il y a des secrets d'État xëy ñi fi conseil constitutionnel yu bari bari waaw loolu yëpp c'est la grande interrogation Amadou Ba a euh, fait recours pour poser la question wala dénoncer comment Diomaye a pu être candidat et conseil constitutionnel de ko rejeté rejeté faré ko ci loolu kon pour le problème bi la justice bi mais quand tu dis que où était Macky Sall là c'est dangereux Macky Sall c'est le président de la République encore une fois li wax Diomaye kon l'homme si il est de la bonne marche des institutions c'est en ce en ce sens que j'ai interpellé le président de la République Il mu ñëwee bëgg a delloo bëgg a Il a a annuler l'élection yi xam nañ justice

Et lui, on va en faire un débat. Euh, mais moi, je ne suis pas d'accord. Mon intelligence ne me permet pas que ma tort ñu may wax ne Amadou Ba ak Macky Sall am problème Tu dégguma ko ci nopp. non d'accord non. mais dama ko bëgg dégg man ci gémino Amadou Ba wala ci gémino man jikko bobu la yor. parce que non non amna lo loo nak ne lo am lu lu né lee gàññi kenn du ko jeex.

bu ñu bëggee rey réalité yooyu seen affaire la buñ ko bëggee tëj sax nañ ko tëj mais moom li muy am am na ko li muy tekki tekki na ko moo lay won ne man dara amul ci diggante Ousmane Sonko ak Macky Sall. je suis vraiment ah, désolé mais on est de tout cœur avec la famille euh, Faye question bi nga wax ne maire bi dina ñibbiwaat biir këram on ah, pense pour man lii amul benn sens on a nos réalité ici au Sénégal. que ce soit une justice forte ou une justice faible. on a ñoo réalité mag dañ koy ormal lii moo tax bi Diomaye di dem Touba. di sukko ka raam alors que barki dem lañ nekkoon fii di saawu diggante Touba Niassène ak Laayeen ñu dem tey ne ñoom ñoo non man man bu may wax non attends il faut qu'on soit sérieux quoi. ñëwaat yaag bu ngeen jàkkaarloo pour wax ko fi may tëjee rek parce que waxtu wi euh, euh, Sira la lay mais euh, may Sira Béatrice balaa ñuy dem rek parce que am na benn point boo xamante ne la ko a dugal Guy Marius ñu gis ko ci télé bi France dégage ak impérialisme du benn moom il parlait de l'impérialisme. impérialisme. yow très rapide.

moom lu mu def baax bu ma rayante daf may attaqué saay bu ko neexee. kii lu loolu moom wax boobu moom xam naa ne peut-être du jàll moom. gis sa gis-gis ci ci loolu parce que dañ wax ne France daf Euh, euh, tey nag démb bi ñu koy gis bi ñu koy interviewé ci télé bi muy xamale ne moom position ba mu amoon impérialisme la mosul d'accordal mais pas ay euh, nekkul woon ci domaine nu ñoo ànd ak France wala ñoo tisser ay relations carrément c'était qui c'était pas la France mais je vous pose la question mais c'était la France allez-y affaire am bi nu mu tudd frappe France, France dégage. c'était ça. Mom, mom, le concernant mais la personne. Mais France dégage, on ne le voit plus. Frappe France, mais dégage, mom, na France France dégage c'est-à-dire que mooy li ma la wax gis nga gis nga gis nga sénégalais ci ci ci contexte ak moment bo xamné non mais sincèrement y a de quoi dé non y a de quoi nga ruus. bu bu bu bu fekkente ni 3 secondes laa la may yow tamit mu ga waaw. <laughs> heure bi du jot il est mi 12 h 11 y a de quoi. waaw France yow sa turu sa turu affaire bi. Mhm. frappe le tudd France dégage. mo nekkoon sa principal combat mo nekkoon sa leitmotiv. Mhm. aujourd'hui euh, tu tu es député.